ndoxu yaay ndey siin maam ku ma joon ndoxu yaay ndey siin ku la woyoon daal la yóbbu jiit maam ku ma su doon yi maa ngi àggal leen. maam Kumba Dia. moom Koumba Dia nekk noonu donc ñu koy souhaité di ko ñaanal sëy bu barkeel madame Sow donc voilà laaj naa ko ndax awala wala ñaareel sama secret la donc voilà tey la ko may borom kër ak xëy di jëkk fii si xarit am jàmm gis ngeen yaayam moom moo nekk noonu ñuy akulaat nga xamante ni moom mooy yaayam donc voilà di ay image yu neex ay image yu yoo xamante ni image yu mbégte la boo juree sa doom ba mu màgg ba toll euh, bu ñu koy may borom kër daf lay dañ siy bég mais voilà gis nañ yaay ji moo koy moom moo nekk noonu di jàkkaarloo moom donc voilà macha allah ndeysaan maam ko ma lay woo la yee di jël yi ma gerte leen xëy la yee naa ba yey na leen doom di bëgg yaayam doom alors mi ngi noonu Coumba di présentatrice Senene waaw euh, Senene People moom moo nekk nii gis ngeen tey lañu koy euh, tey lañu ko may borom kër madame Niang moom moo nekk nii euh, toute belle toute ravissante moom la ñuy gis instant <laughs> dafa étonné wu nii ni mu gisee presse bi nii xam ñun dañoo sopp donc voilà ñu koy souhaité di ko ñaanal heureusement félicitations madame félicitations. merci beaucoup madame Niang. madame Niang waaw ah, wala ñaareel. loolu sama vie la moom loolu dama ko. waaw mais noonu. Ah, lan ngay wax monsieur. ah kenn wax naa ko. jeexal. bàyyi ba dugg ah. bàyyi ba dugg mbokk euh, euh, internet yi ñu toog ak nag ki nga xam ne nag moom moo di la journaliste de tous les temps ki nga xam ne jooyloo na ku ne a ku ne jooyloo na ko am nee naa la borom confidence te doo jooy ah kon nekk nii nga wooyee ba <laughs> mais finalement félicitations kontaan nañu ci bis bi nga daal di dégg alxayri noo ko dund kontaan c'est normal ku uh-huh. dégg alxayri ku ne nekk jigéen uh-huh. kontaan ñaareel awo wala awo yaay nga yomb na de yaa géré lépp d'accord euh, tey ci biir loolu tey bis bu mag bi comme ni nga ko waxee ku nekk ñaan na ko euh, ci dundam tey yàlla may la ko ñu gis euh, li nga xam ne moom moo di kàddu yu rafet yi sa famille yëkkati sa sëru yaay yi sa yaay di def témoignage ci yow mu nekk témoignage yu triste sa relation sa yaay lan hmm, sama relation sama yaay ah loolu <laughs> loolu beneen domaine sama relation sama yaay relation yaay ak doom. relation xarit ak indil indil indil doomu ndeyam relation confidente ak confidente la mhm. parce que sama yaay mooy sama àdduna mooy sama lépp mhm. d'accord tey ci biir loolu ñu bari jooy nañu ndax nee nañu téye bi nga xam ne ne téye nga ko ki nga xam ne moo di sa waajur waaw c'est normal mooy normal wax bu yàqu la mhm. parce que yaay yaay la papa papa la mbokk mbokk la te àddina dina toll koo xamante ne soo gëstoo doo gis ku dul sa mbokk donc soo fonkoo lu bokk fonkoo wayjur yaay fonkoo pap yaa ngi ci lu naturel lu yoon la lu mm-hmm. war a am ñu fonk wayjuram ñu gis ne monsieur Niang moom it mu ngi woote xam nga di wone li nga xam ne moom moo di mbégteem ci bi alors wax monsieur Niang je t'aime ah dégg nga je l'aime c'est tout c'est tout eh, jox bi mu ay ah, monsieur Niang mooy woote a daal di wuyu te yaa def noonu sa noonu ba rek projet ko noonu ba ayca c'est bon hmm? amoo question Ah, ma am naa question kay c'est par rapport ak liggéey bi nga nekk jigéen nekk ci média showbiz bi euh, dañuy faral di wax Sénégal mariage euh, àndul ak lu bari est-ce que par rapport ak sa carrière aussi ak euh, mariage bi xalaatoo mu ne euh, euh, liggéey bi nga war a continuer ànd ak mariage bi est-ce que ça va être facile est ma fekk xam na ne lu ma te daf ma ciy jàppale bu baax. Mhm. d'accord ñu bari dañ naan mariage célébrité comme niñ koy waxee dafay compliqué parce que ñoom lu ci bëri dañoo jàpp ne boo siiwee rek da ngay yëg succès. ndax la góoma lool tey. yéen may doo si mhm. dara du rek mhm. donc man gëwma loolu succès du dara li ñuy jàppee succès pour man du succès dafa mel ni nga xëy suba dem sa bureau liggéey ñi dem bureau ak journaliste yi dem toog si télé si écran mhm. di liggéey seen liggéey c'est la même chose donc euh, man jàppewu ma ko on peut dire que 2023 année succès la récemment nga jël prix meilleur euh, influenceur fii fii Sénégal ci lépp loo xamante ne média la mu nekk ci 2023 bi 2023 jeexagul aussi yàlla def sa euh, nga am ci jëkkër donc daanaka bu na. waaw alhamdulilah sant yàlla yàlla moo xam ay dogalam moo xam ni mu koy programmé hmm? parce que du du deux mille vingt nekk ci média. Mhm. ma xam dëgg xam nañ ne depuis deux mille onze je pratique le métier mhm. donc. Euh, ba yàlla di dogal ci ci doomu aadama ak heure bi mu koy dogal loolu nga nekk def émission boo xam ne mën nañ ne bokk ci émission yi nga xam ne mën nañ leen nommer number one ci li nga xam ne moom moo di réew mi mais terewul a chaque fois day am polémique parce que boo waxee ñu ne maam Kumba day bëgg di jooyloo comme si que ne tu l'as fait exprès de faire pleurer les te du affaire bi euh, tourné du teew ñi nataal exactement nan nga koy dundee non mais franchement du du may sàkku du lu may sàkku boo xamante la ñoom seeni émotion la ñuy génne te loolu nag kenn mënu koo tere ni mm-hmm. mooy mooy mooy xaw a profond rek mm-hmm. mm-hmm. donc c'est normal donc maanaam comme li sénégalais di wax naan daf ko def exprès pour jooy loolu du noonu man sama plateau bi gisuma ku fa toog ku def loo xam ne naturelul ci moom man boog aw ma sànni aw jëf-jëf boobu ay cher monsieur yegg si nag délégation dañ lay bàyyi nga dem nuyoo ji <laughs> eh, yow maa ko bayee démb yow li ma la waxoon sànq c'est bon waa ñu dem ah euh, naa la ñu lay fay ah, ci loo nekk ñu sant yàlla xale ñu may sa doom Kumba Jaax di nit ku siiw di nitu média ah, nan du dundee bis bi see dugguy nga na ko mhm. xale bu am yar mhm. mhm. am diine bëgg ay mbokk xam nag nu muy waxee ci service am ak nu muy waxee ak mag ak xale kon Kumba nii lañ ko yare noonu rek la mën a mel Kumba lii muy def nii lii moom noonu rek la mën a def mu def leneen lu koy yal na ko ci yàlla doon leen leen loolu lañ koy ñaan may ma ko yaayam mais man def sax may morooma man du ma du ma mag du ma doo du ma yaayam sama xarit la defe naa ne ñu nekk ci ànd moom ci groupe bi yëpp ñu xam nañ kuy jaay dund te gisaguñu ma mm-hmm. parce que dama wàccee seen bopp bu maasee ak moom mm-hmm. te loolu nag ci moom la bu mm-hmm. ma maasee ak moom ba ay moroomam sax di ci jot di ci ba di ma yónnee ay ay parole kon kumba dëgg la jërëjëf kontaan nañ ci waaye kumba nu mel ci ndeyam la ko jëlee nii la ma sëy sëy bu rafet toppatoo njabootam uuf leen bëgg ay mbokkam kon kumba lii doon ko koro ko da koo doon kumba koro lii da koo doon kon nag munu man rek na ko yàlla boole ci sëy yu barke yi barke na ko lépp am ñun xeeb nañu ko dañu ko ngay wax ak jëkkëram bu ko takk bu sañ macha allah man de gis nga ko dañuy dégg bëgg nañ ko jërëjëf yow kontaan nañ ci moom te gis nañ ko bu ñu gisee moom waaw bu kere parce que ñu ñëwoon rek di waxtaan si bu ñëwee dañoo kontaan kon ñun tam kontaan ci lool kon jërëjëf ñoo koy dégg tànn bu baax ah, waaye ñaan tànn na am na bët tànn na bu baax nag macha allah kon dëkk gumbawul de waaye gumbul <laughs> noo nekk maa ngi nii maa ci jàmm tey fekk si la kër ki nga xam ne moom moo di Kumba Dia ci bisam bi nga xam ne nag tey di bis bu rëy ci moom lan nga ci wax waaw Kumba sama rakk la Kumba sama rakk la sama doom la euh, mu doon sama xarit tubaab fakkaala muy xale boo xamante ni neex a digal kon amee bés tey bu wootee ñëw ñëw takk jaat kese la mais faaw ñu teew parce que dafa am ak moom. ma relation ngeen am yéen ñaar. <laughs> xam nga relation bi sax man dafa mujj jaaxal parce que mën naa ne polygame moo ñu boole mais dafa mel ni polygame parce que Euh, confidence am moom laa ko mën a wax parce que bu amee loo xam ne ma xadi ñu ma Dakar ma ñëw ñu toog ñu waxtaan kon koo ko wóolu ak ki nga xamante ni sa genn la da koy def moom laa mujjee xam nag mais dafa mel ni ay ati ati at laa ko xam franchement ndax dëggoom sincère am xale bu baax la bu yaru bu téye ko gisee nii ku ma rek la doy li muy wane ci télé bi la mel man xam nga ne ku ma àndal nga ndax dañ may ñoom dañ ma toppee sama jikko ñoom lañ may toppee yaatal ma bëgg ma franchement wax dëgg la yàlla hmm. tey lan ngay wax seen borom kër gi nga xam ne nag tey moo leen jël soxna bi monsieur Niang yan message nga koy waaw jili ñaa dama koy wax jërëjëf rek ndax moo ñu fekk ci biir nit ñi fekkul ci biir jigéen ñi jong may mu ne yéen laa ma doy yéen a doon samay yaay doom kon fay

mais tey série bi sénégalais nam nañ ko loolu xaaratoon waaw ñu ci série bi jeex na mais bientôt incha allah ñu ngi ci ñu ngi nag la ñuy ñëwaatee sax nag ak doole loolu xam ñu noonu Aïcha merci beaucoup ñu bi comme ñu ngi di waxtaan bi waaye ah, man nan nga dund dama dam démb dama stressé woon mais tey bi ma ñëwee ba jàkkaarloo moom dama ne ko doomu sëykat nga te sëykat nga te ku bañ a ko xool xam ne sëykat la ndax yaatoom ak bëgg nitam bëgg xaleem ku nekk mën na koo yendal fu nekk gis nga kii sëyam bii da ciy sëy ba dee bu dee yéen da ngeen journaliste ngeen xaar pour mu génn ngeen dellu si waat pour ku ne yor sa laaj min di wax dem leen ngeen tëdd tànnal ba xam ne kii day sëy ba dee da nga dem wuti jëkkër booy dëkk si lii nga nekkee nii man damaa lamb de man sax naa tàngoo yi sax bu ñu bëggee ma saraxe la man damaa lamb xëy na ku ci bëgg ma ñaan léegi ma mayee ko léegi dama nga sëy baal ci li nga nekk hmm. génn ci li nga nekk bari bari yi nga dajale pour lan la loolu daal foog nga yàq sama der man mën naa yàq xam nga miin nga ko dama laa xamal xam nga man miin nga ko mais li ma la xamal moo bari quoi mën nga ne yii man miin naa ko waaw mais li ma la xamal moo bari nag nga war a nangu waaw kañ ngay tëj ku fel nga dem sëy merci beaucoup